damay def à chaque fois yenn procès yi boo amee je prends le temps d'aller assister bi ñu toog imam Ndaw bi ñu koy jugé j'étais tous les jours au tribunal bi ma xoolee ba muy jeex j'ai dit kii li ñu koy jiñ mooma mais tribunal ñu ko condamner parce qu'ils n'auront jamais la preuve ko moo ko def. défaut de preuve. ils n'auront jamais jàpp ne imam Alioune Badara Ndao terrorisme bi ñu ko doon jiiñ. Euh, la dama yàlla ba apologie terrorisme bi ñu ko doon jiiñ il a ne il était coupable. et si la justice n'a jamais pu prouver qu'il était moom laa la wax ah, xam nga parce que in fine in fine on retient qu'il n'était pas coupable je donne un exemple devant le tribunal ñi ñu ci arrêté ñëpp ñi demoon Nigéria ñi demoon Mali seeti je sais pas le gars comment il s'appelle encore tous quand on leur dit tel jour bi ngay dem dem nga ci imam Ndao fa nga jógee jaar fii jaar fii jaar fii ils ont dit oui c'est vrai mhm. ba ngeen ñibbisee ci moom ngeen jaaraat def nii def nii c'est vrai mais est-ce que nit ku dem seeti Euh, leur chef là au Nigéria. Hmm. ñëw seet si imam ndax mën nañ ko ci tëj. man nga jàpp rek ci sa xalaat ni. ca la bokk mais amul preuve tëj ko ci c'est ça problème.